Wally Ballago Seck j'espère que élément bi Feeling Dakar amoon na ko ñu seen yaayam moom Wally tim ko di ko di ko di ko di ko xamal ne ko lii ngay def mënuloo ko sa jom rek moo la ko tax di def waaye nag doxal li nga xam ne yàlla moo la gën a baax mhm. ah, di ko tagg di ko ñaanal di waat ba mujj na di tuur ay rongoñ eh, image yi mu ngi noonu muy image yoo xam ne dafa wër Sénégal Mhm. wër àdduna kay dafa wër àdduna. képp koo xam ne nit nga rek boo ko seetaanee ci saa sa benn baat ngay njëkk a wax mooy Waly Ballago sekk ku yebu nga ne ko jàkk. te bañ di ko mhm. piis ku daan jéem wàccel ndànk te xam ni mënatoo ci dara ndax ku yaay gërëm. publiquement ñëpp di dégg mu waat ko jëlee ko ci xolam ça veut dire que foofu dëgër na këj kenn mënatu fa dara. première réaction Ndeye Gueye ngay jàngatee lii. ak ban message nga lancé à travers ñi xam ne ñu ngi dund ak seen i waajur. wax dëgg yàlla bi ma duggee TikTok ba gis ko. Mhm. sama rab ñu daa sotti man comme jooy daf maa yóbbu man damaa gaaw a jooy. Mhm. sama rab ñi daa sotti. Mhm. automatiquement rek sama xel laa dem ci sama waajur wa mais man. Euh, jaaga yàgg naa ñaanal Wally mais ñaan bi dafa gën a fort. waaw dafa gaaw na koo ñaanal. Mhm. ndax doom ju jara ñaanal la nag. Mhm. te kenn doom ju nekk lii ngay sàkku ci sa ndey. Mhm. ku ne lii ngay sàkku am ngërëmu ndey. am ngërëmu bàyyi kenn ku ne loolu ngay sàkku. ku ko ci deful perte nga. nit ñaa ngi rawantee ci waajur yi. Wally sekk li muy def xam nga def naa benn sortie ma ne ma ne Wally man la njëkk teral. man lañ di ko jox mu jënd xar. man waxoon nga ko ci topp kaa bi. wax naa la ko noonu soxna ay dara ma woo ma sa frère ne na nga ñëw wuy si ko 17h boo amee temps. mu jox la sa xar mhm. waxuma sax mu jox la sa xar ñëwul wuy ko ma ñëw jour boobu la famille xale bu jigéen doom ji ñu ko may ñu ko doon ñaan si jour boobu lañ fi ñëwoon ma daje feek ñoom. waaye bi mu paree ak ñooñu li mu njëkk a def yëkkati chèque bu duum jox ma. ni ma préparé sa tabaski joxal ma sa jëkkër temps papa moo moom temps yi yow yaa moom temps yi barke Seydina Mohamed maa mm-hmm. ne ñes mooy sama seede bugguma sax Sénégal mu xam nga dañu mën a polémique mais il fallait ngay leeral des fois pour nit ñi xam mais jaaga ñaan gi mu ñaanal Wally képp kuy képp kuy képp ku sa ndey di dund souhaité nga ñu mu ñaan sa ndey ñaanal la ko ñi fi dese seen yaay yi fonk leen seen yaay yi man loolu rek laa leen wax fonk suñu bàyyi it dolli ci ñaan gi ñaan a jaaga ñaanal Wally Seck yàlla na ko ñaan gi topp ci barki ak bépp doom buy taxaw ndeyam di taxaw baayam fii doom yaa ngi rayet ñëw rawantee ci waajur yi de hmm. dangay gis ko am benn junni sax dem jox yaayam quatre mille jël jël mille francs toog hmm. xoolal Njaay Rambo day toog di mooñal yaayam cere di ko tayal. Njaay mel na. barke Seydina Muhammad. Mhm. ah Njaay kon. Njaay Rambo. am na ci koo xam ne ci faramaareen la bokk ñu naan ko Maane Ñas. nee naa ko gisagoo dara parce que dafa am ñu ko xeeboon ca yëmbal mais taxaw gi mu doon taxawu ndeyam. fi mu tegoon ndeyam tey moo ko indil tey fu mu taxaw ñaan visa ñu may ko muy dem Dubaay dem ay Turki di jënd ay bagages ñëw di ñëw di jaay. yooyu yëpp taxawu sa ndeyee ko waral ku ci am sa yaay muy dund na ko téye waaye am na ci ñoo xamante ni seen yaay bu waxee ñu sànni ko loxo seen yaay bu leen laajee 1000 francs ñu ne ko awma génn joxe ko ci biti am pagaay ci réew mi waaye jaaga yàlla na ko fi yàlla bàyyi. yàqu ci dara nag ndax bu ko neexoon bu doomam dee def dara mun a ko déedéet. bul def. ay 13 millions ku ko génne liquide ak fi réew mi tool ak ni réew mi méttee nii ah Wally Seck gàcce ngalaama gàcce ngalaama moo tax démb gis nga ni nga def kaw la yaa nu waajur day topp doom de barke Seydina Muhammad na keneen ñëw ma xool. muy noonu euh, Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine al Mouridul Kabir daan na wax ni joxe ci fit la ku la ko dàq def bu ngeen xeexee yéen ñaar mu duma la ba nga tëdd. <laughs> donc joxe nag ak xeex ñoo yem. Ah, joxe da koy tàmm doo ko def. Alioune joxe da nga koy tàmm. Mhm. baax da nga koy judduwaale. mu ànd ak yow waykat bi da ne kat moo woyoon xëy baax yomb na lool waaye ñuy li jafe mooy nga dëkk ca. dëkk ca moo jafe du Youssou Ndour papa Youssou Ndour mu ne woon xëy baax jafe na lool waaye li jafe mooy nga dëkk ci te senegal am na ñoo xam ne dañuy baax baaxlu wallaay xam naa ci dara baax baax lu fekk baaxuñu am ma yóbbu baax fii lay ne ci xol nga judduwaale ko doo bëgg gis lu bon doo bëgg ñu def nit lu metti doo fekkee fu ñuy yàqee nit doo bëgg a fekkee fu ñuy waxee nit lu ñaaw lu baax rek ngay bëgg di partager loo am bokk doomu aadama yi loolooy mbaax doo yéene kenn lu bon nga yéene ñëpp jàmm loolooy mbaax waaye am na ñoo xam ne dañuy baax baax lu ci kanam gi rek mooy nekk kii lem am na nit ñoo xam ne noonu lañ mel ci kanam mooy nekk lem ci kaw kibéer gi mais ci suuf ñuul kukk këriñ gu ñuul kukk ndax ay xol yu. ñu la wanee gannaaw jiit lañ dañ naan. barke Seydina taf nga tëb. <laughs> yal nañu yàlla musal ci nit ñu mel noonu ndax man ñoom j'en sais quelque chose daal yàlla bari na sutura am na ñoo xam ne ñu ngi mbubboo sëriñ bu mag bi waaye ci suuf moom paf leneen lañu. man mhm. daal jéem na yéemu naa daal ci jamono. waaw mais waaw mais sëriñ bu mag bi ku ko ciy mbubboo te gëmoo ko barke Cheikhul Khadim woon la boppam. kay kay gis naa ci man daal yéemu naa daal fi mu nii daal. sëriñ Touba du fo. du caaxaan ku ko ci mbubboo te gëmoo ko nekkul au fond de waaye da lay génn ci boppam waay. dëkk bi doy na waar daal xam ci li yaayu Waly Ballago Seck def ci doom gi waa xam nga ki Waly Seck. Hmm. Hmm? Hmm. Euh, euh, papaam coon. yaa ngi dégg. ak yaayam jaaga Waly. Eh, bi bi muy ñëw moom Wally sekk hmm. yaakaar naa comme ñun lu ñu gis li muy def nii da ko faa fekk hmm. Wally ñëwul affaire bi mel nii Wally dafa juddu foofu fekk fa lii taraanga taraanga mooy lan papaam di terele yaayam di terele du dëgg moom tamit muy terele hmm. ba pare Aliou fii dañuy jaawale bëri wërsëg yaa ngi dégg ak ak baax ak baax. baax de moo ëpp solo waaw pap xoola ma wax la dara est-ce que xam nga Wally Seck man xawuma ko mais ku baax la. <laughs> xam nga lu tax. Mhm. xoola maa la may dara bu musique bi dee tëggati dee ko xool moom ci seen bi ni kanam giy def li nit ñi di wër ci scène bi ak moom li muy gis bokkut. xoola Aliou est-ce que xam nga nit ñu baax ñi mun nañ feeñ ci musique mun nañ feeñ fu ne. loolu ngay wax ndànk. xam nga lu ma la wax. ci baar yi ñuy mandee sax. waa ok xoola bu musique bi di musigati liiral kanam gi lu muy def nii ak ak musique bi ak kanam gi laa wax de li bi ma ko comparé bokkut bokkul de da waxuma ko pour dara maa la ko may demal nga xool ko parce que si si biir chaîne bi. Mhm. da ciy créer ay baax baax day ñoddi ay nit sax mel ni ku nekk këram di leen fa jéem a teral te musique baa ngi daw. ba di éviter kenn ba xoola ba pare baax gi baax gi. Mhm. baax gi sax. Mhm. ñi mu koy defanteel am na si ñu xam ne amuñu sax xel xam nga lu tax. dafa dem ba seen bi seenam seenam moom baax googu moo bëgg a lekk aar bi. parce que ku su nekk da ngay jàppee seenam bi marché caaree rek. gis nga moo tax Sénégal ku baax yaa ngi ci coono. mais problème bi mooy keroog li mu def xam nga ban jàngat moo fa am. dafa ñaaxaat nit ñi ci yaay yi. moom dafa ñaaxaat nit ñi ci yaay yi. d'accord allez-y. ni dafa ñaaxaat nit ñi ci yaay yi. xam nga woykat yu njëkk yi. da danga daan gis ñuy indi ay thèmes yoo xam ni soo ko dégloo bu dara musaan xew. waykat yi dañ daan woy yaay Youssou Ndour woy na yaay Umar Pen woy sam sama yaay mhm. Baaba Maal woy yaay Thione Seck woy yaay naan boo bëggee jot sama jikkoo ñëwal sama yaay mais woykat yi léegi way waykat yi léegi waykat yi léegi mhm. moom moom ci boppam moom moom yamul ci way yi da koy da koy da koy pratiquer dafa ñaax kull ko xam ne am nga yaay pour nga gën a farlu si sa yaay mhm. lii mu def nii na ko woykat yëpp di def. Mhm. lu rafet la. lu am solo la xoola am na ku ne noo lii mënoon na ko ko jox kenn du yëg ma ne ko man de kontaan naa ci ni mu ko jox nii ñëpp gis ko parce que xam nga lu tax fii Sénégal dañoo dem ba yaay. am ba yaay may ma ma yeggale. xoola waaw wuy ma xoola dañoo dem ba amatu fi valeur. Mhm. léegi bu ñu gisee jëmm ju toll ne moom mu def nii yaayam am na ñeneen ñu muy ñaax. pour ñu gën a góorgóorlu pour ñu gën a góorgóorlu ci yaay. dañuy gis asamaan si ni gisuñu ko. preuve la sénégalais bëgg foofu lañ toll looloo tax nit ñi léegi kenn defatul di ko nëbb am na ci nag ñuy def ñoo xam koy nëbb mais il fallait nga il faut nga fësal ko balaa ñu naan amul lu mu joxe wala joxewul non lu mu def nii daal ah. xam nga lu ma ci mën a wax Aliou ah xoola ñun ñëpp la ko defal xam nga lu tax mm-hmm. parce que tey nee nañ lu baax boo ko dee def mm-hmm. te nga bëgg nit ñu roy ko te lu baax la tey mën a jëriñ lislaam fësal ko ñëpp gis ko mm-hmm. topp ci li mu def nii man rafetlu naa ko trop bi ma ko gisee dama ko partagé parce que xam nga lu tax xale yu ndaw yi ñu roy ci ñi am na ñuy saaga seen yaay am na ku dóor papa am na bërki démb ki dóoroon yaayam birig xaw ma papaam dem ni daf ko jaawale xaw ma ak lan waxal rek tey jii bu gisee waa li sekk def lii da koy ñaax woykat yi ñi nga xam ne dañ leen di seetaan star yi nañuy génn di def ay actes yoo xam ne nii day ñaaxaat xale yi pour ñu pour ñu kii mhm. parce ay nit boo boo pexee bañ bëgg la. da nga leen di wan fi njëriñ fi njëriñ fi njëriñ am. te moom dafa wane fi njëriñ am xoola sa yaay tey ma wax la benn affaire soo ko sàgganee ba mu génn àddina. xoola wàcc kaamil ak yëpp mënu laa jox dara yow. du ñuy dund ngay def li muy def mais am na ñu xam ne du ñu respecté seen ndey yi dañuy bàyyi ba seen yaay nekkatuñ fi ñu bëgg a woo dëkk bi yëpp naan defal ma kaamil ak defal ma laax. wàccal ma ñu togg ci laax. waaw buy dund dañuy jël ñi ci buy dund. Euh, ñu mën a ñëwaat sujet boobu tëj ko wante ni tëjoon nañu